waaw kay mbokk yi kon ngeen ñi doon topp MK TV yaakaar naa gis ngeen ni ñu dundalee guddi gàmm gi fii ci jumaay Touba daayira Muxaddamatul Xidma ànd ko ak daayira Rawdu Rayaahiin ni leen ko waxee woon tanzimuhu bi sunnati waaye itam dëppale ko ak ni ko sëriñ bi daan defee ci njaareem dégg ngeen itam kaddu yu am solo yi nga xam ne sëñ Ahmad Badawi moom Cheikh Mamadul Fadal mi nga xam ne moo doon wax ci turu Cheikh Mamadul taxaa di kaddu yu cant kaddu yu mbégte kon jàpp naa ne mbooleem ñi fi teewoon tey jëriñu nan bu baax a baax ci guddi gàmm gi dund nañ itam guddi gàmm gi ci ni ko sëriñ bi daan dundalee xol yëpp tooy nañ ni ko sëriñ si Ahmad Badawi waxee kon euh, ñi ngi sant bu baax a baax mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoo seqoon liggéey bi muy muxaddamatul xidma ak rawdu rayaaxiin ak mboolem commission yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir commission organisation ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne def nañ ko euh, commission culturelle ñoom itam ci seen taxawaay ci njàng mi ci waxtaan yi euh, commission sociale ci wàllu moom itam taxawaay bi rawatina ci côté santé bi commission communication surtout ci wàllu communication bi gis nañ ne bi ñu annoncé gàmmu gi ba léegi mbooleem plateau yi ñu ci def mbooleem euh, euh, publicité yi ñu ci def waaye itam mbooleem yi nga xamante ni ay sport la yoo xam ne dafa jëm ci gàmmu gi moo xam ci ay annonce la moo xam ay liens yoo xamante ni joxe nañ ko ba 9 jotee ba léegi mboolem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi wala bitim réew di topp MK wala lëkkaloo ak MK moo xam ay site internet wala ay télévision dara ump leen ci gàmm gi te loolu lépp ci liggéeyu communication la. kon ñi ngi sant mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo seqoon liggéey bi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala li ñu fi ñaan lépp jàng ko ci xasida ak alxuraanul karim suñu borom nangul ñu ko dañ daje cee ngërëmul Serigne Touba. kon lii mooy événement gàmmu 2024 dëppoo woon ak 15 septembre 2024 di fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu atum 1446 ak MK TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.